ni ko sëñ bi tanke wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin ndax wax nañu ne sëñ bi tanke na ci ñett yoon wa kana haqqan alayna nasrul muminin tanke ci ñaari yoon fastajaaba lahum rabbuhum tanke ci ben yoon fala ta'lamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati a'yun jazan ma kanu ya'malun bi we nak waxtane won nañu tanke bu ñëk bi tey ñu bëgg ñëw ci tënk ñaarel bi ci wa kana haqqan alayna nasrul muminin ñaareelu tënk bi moo ngi tàmbale ci baytub wajjih liman qad amanu wa aslamu wa ahsanu muxjila man lam yuslimu ba ci najjayta man bi yataallaqu maa min ashayatini fa shukri ismaa loolu boo ko xoolee daf lay jox tënk ba kaan xaqan nga ne boobooy ñaareelu yoon bu mu rotee wajjih liman qad amanu wa aslamu wa ahsanu muxjila man lam kawin li ummatin nabiy sallallahu alaihi bitaslimi rabbun jalla ijabatan tuzahzihul a'daa ila siwahum sarmadan wadaa señ bi ñaan borom am ne ko orienter jëmeleel ci ñinga xamé ne gëm nañu la ci xol té jébal seen mbir di jëfé seen digal té di rafetal jëf ga jox leen lo xamné ñinga xamné defu ñu né mom jébalé seen bir fuñ tollu di ngir kawe gañu leen di kawe ci sa secret kun gi nga xam ne loo ne kun mu nekk nekkalal dogalal loolu day jëm ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow mi nga xam ne yaay buur bu màgg bi nekkalal leen ak nangu goo xam ne day tax seeni noon daal di dàqu jëm feneen wan leen gannaaw ba faw dàqal leen tamit tawat ñoom xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد yow suñu borom yow mi aji jariñe yow mi aji tedd yow mi nga xam ne yaa dominé lépp ci sa loxo li la tege nangul sama ñaan gii ci barke ki nga xamne ne mooy dominer nangul sama ñaan gi yow suñu borom yow suñu borom nga xamne ne aji wattu ji ñoŋalal xeetu yenente bi ar len ba yéefar duñu mën ci ñom dara ci barke sa yenente yi nga yebal yeb khud lahum nasara na nga len may ndam ak victoire al azida gu kawe gu màgg ajila ci lu gaaw mooy fii ci àdduna wa bashiran hum ajilan wa ajila nga bégal leen àdduna bégal leen àlaxira mooy mbégte teew léegi ak mbégte lu jëm ëllëg wammatal ñi nga xam ne dañ laa gëm loo xam ne day dolli seenu ngëm di dolli seenu bëgg ci yow mi nga xam ne foo toll yaa ngi amuk ndolle ñëw suñu borom axni zawil islaami an rukuni ila idaka wa ani sukuni على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى ولا والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا سنبنا بنا برومم woomalal بدون lislaam ba duñu soxlaa نون bu ñu soxlaa jeng it jëm ci akuk tayal akuk dal akuk giim sottil ci yenent bi nga sol xam-xam te yónni ko ay xéewal ak i mucc yow mi nga xam ne foo seero bi far daal di koy alak jëmale ci yenent boobu nga xam ne bokk na ci ay turam almuntaxa ak ñoñam ak saxaabaam say xéewal ak say mucc te nga may ma lépp lu may sàkku ci yow yow mi nga xam ne yaa moom bindeef yi yaa mbir yi yow mi nga xam ne yaay doyloo nit ki ba mu doyloo ba dootu soxla dara lama ma seqoon a yow ci jaayante doyloo nga ma ba soxlaatuma wëlbati ko di ko laal woo naa la yow suñu borom tey ak démb di yaakaar nag nga nangul ma ñaan yooyu te noonu nga ko defalee noonu ma ko yaakaare woon nan nga ko defee ci lu dul sikki sàkka faj nga samay aajo wala qadayta duna shakkin haajiya awsil li ummati nabiyi ahmada musalliyan alayhi fi man humida نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رد لهم منبارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بيرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحيحة زابروع ataytanil jamia duna salabi wali taqudu sola waxta talabi yow suñu borom àggaleel jokkaleel ci xeetu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam te julli ci moom sotti ci moom xéewal lan ngay jokkale ci xeetu yenent bi victoire bu kawe bu màgg boo xam ne ndaw ña dañ koy yëg mag nga yëg képp ku jug di tiitaru ci seen kanam di bàkku fi seen kanam wommat ko tàggat ko ba mu mel ne ab jaam si seen kanam xeetu yonent bépp niki noonu ñoŋalal xadis ak cosaani diine yi niki alquran xadis ak yu ne demee ba ñi nga xamee ne dañoo lànk ne duñu tuub duñ ca mën dara duñ ca mën a dara yow suñu borom yow bi nga xamee ne yaay aji yëkkati yëkkatil alquran ci man yëkkatil yi diine yi ak bànqaas yi diine yi ak xadis yi yu wér yi yëkkatin gu jaar yoon yow suñu boroom yow mi moom lépp jox nga ma lépp te dootoo ko rekki te may nga ma saa bu ma la ñaanee nga daal di may may la ma la ñaan fa saasa li awsalil lazi urid wan faxi beel wara yaa moxniyan an mi de faxi محوت قصد الدر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده زوتقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى عليه شيء قلت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهب رب لما يسوءه دوما ذاك رب yow suñu borom àggaleel jokkaleel li nga xam ne dama ci man te nga jariñee ci man bindé fi yow mi nga xamé né soxla wo di wo ku lay jañal soxla wo di wo les di jañe yow suñu borom ya far né lor du jëm mukk jëm si ci man ci sa barké bi yenen ba ca turum nga xamné ne al di almuntaxa nga womatal ma lepp lo xamné ñala ragalon dañ ko doon wër dañ ko doon wër di wut nga womatal ma mako yow jox mako jox nga ma lo xamne du dañ mukk di nek lu yem binde fi di na di yem as salihina ñu bax ña annu jaba ya nga xamee ne ñu yewu lañu wala nga wax annu jaba ñal na jaba nga xamne nu day nek maqamati maqamati tasawuf yi suñu borom talal nga ma yekati nga jox ma lo xamne jox gi nga mako jox dang mako jox ci anamu ki nga ci anamu joxe nu ki nga xamé né dara ump ko jox nga ma lo xamné ne gëna neubutu lu neubutu waaye ca formu ba nga ma ko joxee loola yàlla nga ni mëna a joxe ndax ba nga ko jox nak mako jox ci sa sol sa mbub mi nga xamé né ki dara umpul nga mo sañe sol mbub moma dak nga kep ko xamne daf ma bañ mu daw dëgg ma leneen waaye la may lor moom sori na ko te booba nag njaqare la feesa dell ba muy daw yàllaahu yaa rahmaanu yaa basiru qaadiru yaa rahimu yaa nasiru najjayta man bi yataallaqu maa min ash-shayaatini fa shukri asnaa yow suñu borom yow mi borom yërmande ji yaatu ji fi ci àdduna mi nga xam ne yaay borom gis gu sore gi dara ump ko yow mi aji kàttanu ji yow mi aji borom yermande ji sew ja allah àllaxira nga xamne ñako da jamm dong la yeeram yow mi aji dimbalé ay ab julit bu la gëm te wolu la te wakkelu ci yow ñaaju ci man ñepp musal nga leen ci seytaane kon nak sante man la war kon deglul ma sante la fofu la lu tënk haqqan kan bi yam inshallah jotaay bi di ñew ñu dem ci ñettelu tënk bi Bullfate abone, bullfate abone, bullfate abone, bullfate abone.